القرآن القرآن تيري يلا بي تيري بلا يلا وجه سيان بي القرآن القرآن تيري يلا بي آه تيري بلا يلا وجه سيان بي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بكم من نعمة فمن الله بقي ويتلكو سين إيميشن ولا سين تلفزيون إسلام تي في seen mbokk Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye feggoo ak Oustaz Mouhamadul Makhtar Silla ci seen émission bi tudd wéral sam njàng ñëwaat na ñaareelu yoon te nga xam ne weer wu nekk benn yoon la ciy am ñëwaat na ñaareelu yoon ngir émission boobu yi nga xam ni moo tudd wéral sam njàng émission boobu yi nag ni ngeen ko xamee émission jéem a wéral sunu njàngum alquran la maanaam jànge ko na ko yonente bi sallallahu alayhi wa jànge woon te jàngale ko noonu luy maanaam loolu mooy mu tege ci qawaidu tajwid émission bi loolu mooy yitteem mooy kenn ku nekk ci ñun jéem a xool ba xam dëppoon naa moom ak déet bu dee dëppoon naag dëppoon naag moom alhamdulillah bu dee rek njàng mi am na lu ci des ci wàllu tajwid nit ki góor góor lu ji jéem a xool ko bu alquran ba ko gën a jege tey jàng lu wér te mën koo jàngale mu defaral ko am njàngam émission boobu nag dañ ci euh, seq ak dañ koy seq ak Oustaz Makhtar Sylla ni ngeen ko xamee weer wu nekk incha allahu ubbil buntu mbokk yi nga xam ne bëgg nañoo participer ñu yónnee seenum njàng ñu seetaan ko joxe ci sunuy xalaat ci wàllu riwaaye bi mu jàng waaye wàll tamit àtte yi mu jàng mu nekk njëriñ ci ki ki jàngoon waaye nekk njëriñ ci ñiy seetaan Oustaz Makhtar ñëwaat nañ ci émission wéral sam njàng ñu bàyyi la nga nuyoo euh, ñu dugg ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Cheikh Mouhamed ni nga ko waxee. Mhm. émission la bu am solo lool sax. Mhm. ndax li mu àddi la. Mhm. te mooy wéral sam njàng. alquran. wéral njàng mi. ak wéral xam ngeeg jëfe ji. ñooy ànd. dëgg la. ndax wéral njàng mi ci wéral jëfe ji la bokk. dëgg la. ndax alquran ci bopam mo santane ko jang hmm. jang wér hmm. sun borom dafa wax ne hmm. warattil qur'ana tarsila ak warattalnaahu tarsila Al al qur'ani bi xadis ba kon insha allah boo xam ne mat naa xel ya, kan? deug la mais passer bu nga koy topp dëgg la deug la bo ko re top nit mën la laa laajaale loo xam won waaw wala ni yak ya. saw yak ñu jubbanti ko jubbanti wala la jubbanti alquran mo demee non ndax daanaka ñu bari bari yak yak ñoko deug la kon loolu lañ ci Cheikh Mouhamed. di xaar nga ñëw. suñu première jërëjëf Cheikh Makhtar xam naa sunu première participant tey mi ngi tudd Serigne Abdou Aziz Diop. dañuy bàyyi suñu technicien yi ñu dugalal ñu ko incha allah jàngee ba noppi ñu ñëw nag ci lim jàng joxe ci suñuy xalaat ci wàllu ahkaamu tajwiid dugalal leen ñu Serigne Abdou Aziz Diop ñu déglu ko. salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu man maa ngi tudd El Hadj Abdoul Aziz Diop dama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 jërëjëf mbokk moom yi sëriñ Abdou Aziz Diop Cheikh Mokhtar mi ngi tijjee ay kàddoom dama bëggoon a tari alfatiha ngeen xoolal boo xam wér nam déet lu am solo ndax fatiha moom alquran yépp la nit war a góor góorloo di ko jàng njàngin mu wér waaye rawatina fatiha ndax ak wéram wérug julli da cee aju eh, Cheikh Mokhtar looy taxalab ci loolu ak yéen commentaire nga am ci njàngam Cheikh eh, dama ko njëkk a encouragé ci shajaat njàmbaar gi mu am. alhamdulilah. njàmbaaruk. jàng ñu déglu ko. wala njàmbaar. dëgg la. yàlla xam ne dem sama xutba jumaa bi ma def maa ko def ci alfatiha. dëgg la ci wéral njàng mi. ak tadabbur gi ak teewlu maanaa yi booy julli. wéral njàng wax naa ci ne am na ci Sénégal ay yilimaan yu bari yoo xam ne seen fatiha wéru. ah ñooñu nañuy jiite nu def. la def de xam naa ne borom xam ne ñoo ci wax ñooy ñoo ci fukkaaw ñoo waaye man li ma ci xam mooy. <laughs> li ma yóotu ne. seen faatixal kitaab ba léegi wéru. te li ci ko wéral. fan yii ndax daje naa ak benn fatwa bu Cheikh Mouhamed Ahmed Lo. ñu laaj ko lu mel nii. waaw lii limaan joo xam ni faatixam wérut. waaw waaye ca tontu yee dama tiiluwul bi mm. waaye junj na ni am na fu muy toll. day jar ñi jiite woon dem baamu ci seen. dëgg la. خمغا فاتحه دافا نيك ركن من اركان الصلاه بس بروم تديكو جولغي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين كون واي ولاني لي تخم تديكو كو موي تسميه الجزء بالكل اذا كان هذا الجزء من الاساسيات في هذا الكل لا عرف ملتي اك جيحنا نون الحاج عرف عرف عرف نياك اك مرا كوم مانكي فاتحه لا léegi nag Abdoul am njàngam euh, wax li mu wax dëgg la mooy naa jàng ñu dul moo ba xam biñ ko diloo par li ñu ko wax mooy fatiha da ko war a jàngiwaat moom Abdoul Aziz daa war a jàngiwaat fatiha ab sëriñ bu man alquran mu déglu ko mu sako bu mu bu ko déglu ci ay rajo da dem ci ab sëriñ mu sakko ko na ci am fulla ni mu amee fulla nii jàng ci émission bi pour ñu déglu ko ci wéral sam njàng da dem ci ab sëriñ bu ko man mu déglu ko ndax moom وقم لا فاتمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دوير منكو قوم ينكم ديت مانام ايات ييب دا فسل اك ياق يو خن منكو دا فام ياق اجي تي تي مخاري ام اجي تي تودين وي مانام دال فاتحه جيب بور ورا نانكو دا وا دم جانغي وات كو نخ دام جيفه جيفه تي مخاري ام جيفه جيفه تي صفاري واو آه، بسم الله الرحمن الرحيم تي بوب نكو جانغي دا نك مو رك موكو مان am na lu wax tam xaw ma maliki la wax am na ko wax daal maliki yow mi din la xaw ma maliki yow mi din. maliki. maliki yow din yaakaar naa la wax. laam gi la jàngee ra. yëgu ko sax xam naa ne. yëgu ko ndeysaan. waaw yëgu ko eh, yaakaar naa abud wa yaakaar saa tam na ko jàngee. man bu ma taa jaaraat waaye xam li ma mën a xam. mooy kii di mbokk mi di Abdoulaye Sy Diop maa ngi koy encouragé. Mhm. ci njàmbaar gi mu def. Mhm. ba feeñale lii boppam waaye nag bu mu taxaw njàmbaar gi des na beneen jéego. Mhm. dafa waxoon damay jàng ñu dem xam. bi mu jàngee nu déglu nañ ko ba xam li ñu xam ci li mu jàng mooy li mu jàng wéru kon li mu war a teg mooy dem seeti ab sëriñ daara bu man alquran waxum bu dem seeti ustaas bu arab de wax naa dem nit dina am doctorat ci arab te du faata du wér loolu day am am am doctorat ci arab te seen faatalu kitaab wérut loolu am na ci dëkk bi moo tax il faut seeti koo xam ne mutaxassis ci fànnu tajwid la ab sëriñ daara bu ko man wala xawaayidu arab déedéet waaye qawaa'idu tajwiid moo koy jàngale. kon ki taxasus ci arab kese. waaw tax taxasusul ci alquran mën naa bañ a jàng alquran ju wér. waaw loolu wér na day am sax lu bari kon man li ma koy dénk Cheikh Mouhamed moom. di ko jéem a wax ay yàqam sax dama ci fekk. li ma koy dénk rek mooy encouragé ko ci ci njàmbaar gi. waaye nag ni ko dem ci ab sëriñ daara bu man alquran. waaye nag bu man alquran laa wax. mu mu sakkoo Fatiha. ba mu mën ko tari ko bu ma nee kon ne leneen la ci alquran moo gën. bu ko mën alal aqal fatiha mën a fexe ba wéral ko ndax dafa bokk dafa nekk rukkun min arkaani sala loolu loolu laa koy kii li ma koy firndeel rek mooy man bi ma dégloo faat ji ba pare euh, tomb yi ma jàpp ne mënuma koo bàyyi mu rëcc yàq yi nga xam ne mënuma koo bàyyi mu rëcc dama ko war a noté bu wax ko ja euh, xajee ma wax ko toll na ci fukk ak benn ci fatiha ji tàmbale ci aoudu billahi ja ngay wax tàmbalee ci daxta gi muy daxt ci araf yi muy taxaw arrahman arrahim yawmi diin nastain nga xam ne loolu xeetu dolli xaraf la ci mujjug baat yi maariki gi nga wax iyaaka naabudu wa iyaaka nastain woyafal na taxfif na yaa gi shadda gi ñëwul ba pare xëcc gi ëpp aynam yi safxa naxbudu lay wax غير المغضوب عير المحضوب آه، آه. <laughs> على كل حال آه، لنكم مختار بخي مانام جيمي نيمي جانغ روتنا فاتحه نيارل بي موي لاج با خم ويرنام ديت سي نيو جاب ني نيولا سي تاني نيتل موي فاتحه جيغا تامبل ليغا خم داني كروكنا سي صلاه لول ليپ لي نكاي غونغلي موي نيو لي نصيحه nga xol ku man fatiha mu dila ko sax dila deglu déglu incha allahu ba sa fatiha wir nga doole ci lo meuna a ci alquran al karim eh, jere ngeen def mbokk yi kon dañuy andat eh, ak suñuy technique seen ñu dugalul ñu mbokk mi ci top ñu xol am jangam momit bu ñewé commentaire ci bismillah aleykum rahmatullah wa wiral sa jang maa ngi tudd Hamad saw maa ngi di jàngal riwayatu wars an nafi ci tariqul azraq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتسد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من صاور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من صاور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أزحب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب jërëjëf mbokk moom sëriñ Xamaat Saw Cheikh mokhtar mi ngi doon jàng riwaayat Warsh ni mu ko waxee moom wax na riwaaya bi wax tariq bi mu ko doon jànge environnement bi mu ko jànge neex na ma lool wan ñu àll beeg noo ngi sant yàlla kon mën naa am nawet bi mi ngi dox yal yalla yok barke bi kon mom mi ngi jàng riwaayatu warsh jang len ci suratu fatir gën taaliq ngay am ci riwaya bi wala ci ahkam yi wala ñaar yep waaw sama taaliq day dana dem ci ñaar yep waye mom tam dama koy ya man dama koy encourager ci eh, ñimegum ñime jang ñu deglu ko lo dafa am solo ndax nit ki eh, pour mu meuna jubanti ay mbiram dafa xam na wala dengul. te pour nga xam dëng naam dëngul da ngay dem ci koo jàpp ne moo la ca tane moo tax dama koy encouragé waaye riwaayat warsh la jàng nee na tariq azraq eh, waaye moom tam dafa am mushkilatu ci aouzu billahi ak problème waaw da ci am problème hamza gi ni ko jàngee baaxut ayin cof na ko mina cheytaan ni ko jàngee tamit cof na ko lool taa gi léerut uhuh. daf ne summa awras daa si siin ثم أورثنا الكتاب لجان ثم أورثنا مو بدان ثم أورثنا حرف الثاء حرف الثاء مو جانق حرف السين ثاء من يجينا طرف اللساني مع أطراف السرايا العليا وكتب بني كو أكتب لا مني أن جينا ثاء مو بجينا كوتي ثاء مو السين سين وقت حروف الصفير لحن جليلة لحن جليل كبير عظيم حرفتك ولو صبي له ليست معنى معنى بعد جساسه زالم لنفسه لا جانك ظالم لنفسه ظالم ظالم لا جانك ظالم لنفسه مو جانك ظالم لنفسه لا غنى آه، يوم يبقى مانكي بابا امنا في يوكو غنى في يوم نكوت غنى واو فمنهم فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه بدأ مخادي حروب تمد غير النزيهة عرف الدنيا ستو عرف ونك أمل تكو جل تبكو من وين حرف أم جانغ وخم تكو جانغ منك خم حرف دفسر يتش هذا منو جيسيكل من وراء ديجو مكوتشين جانغ بي ولا بغني أنا طلب صفات الحروف نيك نونو أم نتبير القرآن جرايو هم رايو بلو كترقيق دكتور أم يتفخي أم يترقيته داي داي داي تعكيس داي فمرة ترقيق مترقيق منام آه، بوخ سلو amul problème tarqiq ak tafxiim. waaye daa am problème ràññee fan. la war a tarqiqe ak fan la war a tarqiqe saabiqum bil xayraat la jàng. waaw te warsh la doon jàng. waaw lool lool lool xata la ci warsh. xata la ci warsh. waaw bil xayraat la war a jàng bi tarqiq ra. waaw mu ngoog ba moom daal boo ko toppee. da nga yëg ne yii moom da ko war a jàngaan maxaaju xuruf da ko war a topp baamtu. waaw sifaatal xuruf da ko war a dem seeti. gunna da ko war a jàng. ahkaamu ra. bayna tarqiq wa tafxiim da ko war a jàng. ci warsh ci warsh. جميل لول دال اي اي ملاحظه ما شاء الله شيخ مختار دا نك موي ملاحظه دي مو امون إيه، تي صفات تي لي دغ رك قلقله جيم نياك قلقله مو كو تصيد تي لي دغ باتاي ولو اولو ا جيم واخ لو لو اولو ا لا واو خم nga حمزه دا ما شدته واو موم نك داف من داكو جوخ البينيه داكو جوخ البينيه واو تي <laughs> لو لورنيان لو لو ا لو جميل دولي ختي تي فو خامتيني ورك فان دولي دغ يالا ورك فان دولي احل لنا دار المقامه واو سبب ختي ام فو بام كاي دولي ابو فو ابو فو واني غني نون يشدي دولي كو تي برب ييغا خام داني ابهار كين لول ورول وون كون كون بصفه عامه لول شي مختار وخ لما تباي خيل لا باب الغنن متنا باي خيل حرف يتبت بين بنك فم sha nga genn ko ci place am bañ ko jang sin dha nga genn ko ci maxarajam bar koo jang dhad ak dha kon bañ koo jang eh, zaay waye tamit kadalika mboolem sifaat yi nga xamni warna am ci gunna ya qalqali nga fexé mu ñew yalla yalla def tawfiq riwaya bu jafé nag nga doon jang riwaya bu <laughs> waye ni lañ koy mané fexé ñi ko ñi la ci tane dina ci déglu dina jubanti da ngay nango ko sam jang gën rafet sunu mbokki techniciens yi dañuy tegal mbokk mi nga xam ne moo ci topp sunu troisième participant bismillah بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون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 وهو العزيز الحكيم جرجة شيخ مختار جرجة مبقى مم مم جد توخترم شيخ مختار واي أم جانجم ديك لنكو من جرد جانجر واي تحفص عن عاصم تي موجوك سورة الحشري الحشري واي ين جنة من بيو كوي تعالى دوان جيكو حرم مم ليس بينه وبين من سبقه فرق كبير إلا أنه أجود قليلا من موك كو جيتو واو راوند مام سوري اندو ني جانغال قران moo tane tuuti moo tane tuuti nag. ci maanaam ñàkk araf yi ñàkk a set xam nga Cheikh Mouhamed. li ñuy wax nazaatul xuruuf. dafa am solo ci njàng. fexe ba am an nutqu salim. li kulli xarfin ala xida. wallaahi ñu yëgoowuñu ba bi ñuy toog ci plateau bi. waaw waaye bind naa fi baadul xuruuf gayri naziha. jeex na kallaa bi fii lafdil jalaali wa gayri. jamiil moo tax affaire bi li wala naan montar yu baax yëpp bokk. ndeysaan. manam mana a yow mu ñu wute ci li ñu not dëgg la ndax li ñuy seet lenn le dëgg la te li ñu xam lenn le dëgg la moo tax dëgg la léegi nag maanaam moom xaraf yi dafa sëtut bu baax te njàng da am da koy da ko xaw a gaawal waaw waaw dafa xaw a gaaw te sorroo njàngum alquran mën naa am mën ngaa jàng bil xadar waaw mais xadar ak tasarrof bokkuñu dëgg la tasarrof mën ngay caf araf pour yàkkamti boobaa tartil du amati tartil amatu fa man foog xarab bu nekk dañuy warante mu ngoog isbaalu ahruf bi harakatiha waaw laa budda minhu wala kunta taqra xadran bu ma mën a jàng mu gaaw mhm. xaraf yi dañoo war a set seen i masque mat mhm. léegi loolu dafa manque ci am njàngam bu ko defee daanaka loolu la wute moo ak sifatul xuruf bi ba wax ca kee mhm. ak léeg-léeg xunne yi toll mat yi tollawul waaw fi mu wax laa ilaha illa hu fee mu gàttal ko waaw yooyu seet naa ko am njàngam moom nga xam ne moom tam dañ koy encouragé ci ñemee gim ñemee njàng wane boppam mhm. waaye bu mu yem foofu na seeti mhm. ab sëriñ daara boo gën a jege mhm. waxtaan ak moom fexe ba tatbiq ci moom dëgg la ndax mu mën a alxuraan bi wér sëñ bi alxuraan bi set di ko jàng ñu ko war a jànge dara dàq ko dëgg la ku ko dàq ko jàppale am na ko dàq da ko mënul rek dëgg la boo ko mënee xam dara dàq <laughs> ko boo ca boolee xam mi firi nag moom mu gën a neexati. mooy cere cere cere cere ju xamul nu ñu ko waxee cere ju am diw xamul nan la moo ca dàq. est ce que est ce que. Cheikh Oumar jazaakallah xeyran génne ko yooyu nga joxe xam naa bu ñu ciy dolli rek mooy gunna yi muy dugal ci mudud yi. waaw fa humul faizun. zun waaw. yooyu feeñ na ñaareel tamit fés na tafxiim xaa. xaa waaw. asxaabul janna. xoo waaw xoo. asxaaban naari. دلون تفخم حياتها بكو الحروف المفخمة أصحى حاء حو جميل بوكو جو ضاد يتمد حرف الضاد واو أم نجي بروبلم اللهم لا أضر واي دابا نان فرال دي وخ سامي يندوغ نان دي لين بوسو تيرا أنا أه، ما شاء الله جزاه الله خيرا الله ما من ما شاء الله واي موم ديناك وخ مو ديغلو الحاج جي تي ضاد ضاد جميل الحاج شيخ جي مو ما شاء الله والله إيه، إيه. لا اله الا ما شاء الله حرف الضاد آه، امنا بروبلم am na problème am ci tudd ko ci maxrajam waaye am na problème am ci jox ko sifaam mbokk mi doon jàngoor si it feeñ na ci moom bu baax day jox daal yi safatal infitaax waaw infitaax la ko jox mu jur mu xalxala ko te ñaari suko yëpp daal amu ko amu ko waaw as safir gi nekk ci siin ak zaay moom it mbokk mi doon mujjee jàng awaaxiru suratil xashri am na problème am as zaay ak as siin bu àndeek saad dañoo am sifatu safir الصفير مو اقسى اقسى واو اس از اص ورم خم خم سبق صار سبق تور تور لين رول بيتي مومنتو تور تور تور bu zay zaay yamb la nurul sap yamb eskay bu dee siin njéeral la nurul ak sab masha allah sap gogo nak buñ jàpp ni ak wadé la gu muxtar sul def buy jang waye da bok ci xaraf yi da bok ci xaraf bu ñak lool mu mënta ñak nañ ko baye xel cheikh uh. muxtar sul participant bu ju ousmane gele tud du dekk mbuur uh. neena na uh. doon jàngati at xaf su nañ ko deglu momit te ñam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa وبركاته aqukum عثمان gay أريد an aqra shay'an min alquran بروايه حفص عن عاصم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 من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون jërëjëf mbokk moom yi Mbuur doon jàng ci riwaayatu Xafs jàng njal bennu suuratul baqara. baqara naa Cheikh Maxtar yéen taaliq nga ci am. waaw Ousmane Gueye nag moom wax dëgg yàlla ñi fi jaar tey. moo leen moo ci moo ci gën a rafetum njàng. alhamdulilah. moo ci gën a rafetum njàng ndax njàng mi macha allah. Mhm. maxaal bi ñëw na mhm. sifaat yi bàyyi na ci xel. Mhm. donte am nañ ay géndeekuñ ci am. yoo xam ne bariwul. te mooy war naa yokk nazahatul xuruf man loolu ma ci wax ak. maanaam maanaam jàngkat yu bare ba dañu am jafe-jafe foofu loolu nag ku fi am jafe-jafe ñaar laa lay yebal nga déglu leen bu baax Cheikh Mamadou Khalil Husari Abdourahman al Hudayfi est-ce que est-ce que ñooñu boo leen dee faral déglu dana la dimbali ci nazaatul xuruf ak araf bu ne nga isbaa ko bi xarakatiha moom moom am na loolu tuus jafe-jafe ci araf yoo xam ne leeru bu baax ak qalqala min qabilik ñu ko qaabi dafa jàng qaabi jàng xoobe xola xoobi ak xoobe ma xam ne dama gis ci jege ma bokkuñu xoobe ak xoobi xoobe xoobi xaabi dafa mel ne ku xaw a ixtilaas maanaam xalxala gi da koo jigeel kasra kasra te daa war a xal xal xal xaalis dëgg la xalxala du kasra du damma xaalisa la loolu moo gën a wér loolu moo li gën a wér ci li ci gaa yi wax donte am na ñu indi na yooyu yëpp. waaw ginnaaw bi mu ne nag. qalqala moom sawt mustaqilla. mustaqilla bayna alxarakati wa sukun. jamil deesu ko jigéel masque gi jiitu. wala ji topp deesu ko jigéel yoo ca topp deesu ko jigéel genn masque. moom ndax loolu ixtiraas lay tudd. ixtiraas lay tudd. te qadiman wa xadiisan amul ku wax ci waroon xam-xam yi ne qalqala day laal ixtiraas. déedéet déedéet déedéet. waaw qalqala boobu daal laa xam bàyyi ci xel. te mën naa am comme benn laa ci dégg ci lim jàng. waaw mu bàyyi ko nekk ci yeneen yu ñëwaat. yeneen juróomi xaraf yi. beneen mooy xunne yi tamit xam nga daa am loo xam lu am solo. Mm-hmm. te mooy miim. Mm-hmm. maanaam xunna. Mm-hmm. dana gën a ame doole ci miim. waaye du gën a yàggee ci miim. maanaam doolee xunna dana yokk. ci ci nuun ak miim. waaw waaye mu des sama ne du yokku mu des sama ne du yokku de. jamiil <laughs> nañ nañ jaam nañ nañ nañ uh-huh. doole ji ak yàggaay bi. dëgg la. yàggaay moom benn xaraka la war ñaari xaraka la war nekk rek. dëgg la ci fu mu mën a doon mais nag bu dee ci nuun gu shadda. Mhm. wala miim gu shadda. aqwa doole yi day yokku. Mhm. loolu ñoom dañ ko lu bari xuraa eh, yi dañ ko du xam. dëgg la waaye nag lii boo yàggee am. mën mhm. naa am waaye moom daal. Eh, alal xuraas moom jàmbaar la. moom bu yoon mu jaar nii. yoonu man alxuraan la. bu ci continué dana ko mën incha allahu taala. macha allah waaw eh, jazakumullah xayran ma seedal la ni wala ma bégale la ni mi ngi ciy def yitte. macha allah dawra dara arqam bi amoon ci koor gi. est-ce que nga waroon cee participer far tukki. waaw ah. ci ñi ci participer la woon bokk si ci jariñu macha allah waaye jiite la woon est-ce que est-ce que maanaam mosuma seetlu benn muhaadara wala dars boo xam ne wuute na ko wala mu toog sax ci deuxième place troisième est-ce que ci première rang jamil jamil macha allah jamil jazakumullah xeyran ñun suñuy mulaaxada maxtaar li ci njëkk mooy dafa mel ni buy xun na day day boole ñaari tuñi ci amaliyatul xun na te yoon néew ci maanaam yunfiquun téye fa tuñ ah loolu yàq la yàq la ziyaada xarfu la dañ ko bàyyi xel parce que <laughs> loolu Mouhamed sew sew la. sew sew la. ah sew sew la da ci kii wa mimma razaqnahum yuu. waaw yuu yàq waaye doo yuu. yàq ba nga tuddee damma gi. nga xam ni moo waral tuñ yi dem. delloosil tuñ yi. delloosil tuñ yi jamono bi ngay xun. cëb yunfiquun. Mouhamed loolu feeñ ci naan naa la may ñeenteel. <laughs> kii nag bu عدم نزاهة الحروف <laughs> فإن تودي شيء لين شيء حرف نين كنا نهيه بس من أولى لا إك لا واو لم نقول ده أولى <laughs> فإن إن لدينا كفا ك ك ف كف دك كفرو وين دك كنا لفين شيء اللي مرة جوني تميت كان شيء ما شاء الله محمد شيء ضغط شيء الحروف المسكونة في أواخر عند الوقت واو واو لو زيادة حرف لنجبا يخل نجبا يخل باخ أو حرف بوسكون تشدوا غادي كي تخاو تخاو تجيبك نستعين مستقيم عظيم وعيبوني عظيم آه، هذا زيادة يعني زيادة دول لي حرف لول نانتي نانكو بايت البارت لي نيخال كي مونتي مونتي يبو ام جوغي مام لو جوغي جوغي بول جوغي يبو yokk wala xam nga alquran na ajaba quranan. ajaba loo ciy déglu boo bëggee boo bëggee jommal yow. ba bàyyi alquran jommal rek boo mu ngi doon mbokk yi seen émission wax euh, wéral sam njàng la woon noo ngi gërëm bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo participé jotaay bi incha allah jot nañ lu ëpp loolu ci ay vidéo waaye nag ñeenti participant lañu ñu émission bu nekk di may dañuy taxaw ne fi incha allahu ba weer wii di ñëw ñu topp nag ñi nga xamante ni seen vidéo mi ngi fi woon ñeneen ñi cey top benen émission yi ñu jël leen seen na Abou Taha mohammed Alioune Guèye fegg won ko sax muxtar Sylla ci seen émission wéral sam jàng alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu al qur'an téere yàlla bi tere bi la yàlla wàcce si yonen bi alquran alquran téere yàlla bi tere bi la yàlla gaawate si yonen bi